sama parce que étant jeune. waaw waaw sama baay dafa ma jàngal liggéey. liggéey dama daan yeewu 6 heures du matin. Mm-hmm. bale waaw di raxas waaw les dimanches ma set sama yaay yeewu sept heures waaw di defar foño ma toog di koy xool di koy jàppale xanaa kër ga amutoon jigéen yaa ma dégg sama sœur yëpp daan jóg tamit am lu ñu jàpp xanaa kër ga amutoon jigéen ba yaa ma dégg mhm. donc am na loo xam ne boo ko tàmmee yow en tant que <laughs> être <laughs> du tax sa moromu góor yàpp la boo demee bitim réew tamit li ñuy wax ay affaire bu ah, baax li nga jëlee fii moom ngay yóbbu foofu sa yaay am aw jigéen ku xam nekk man xam Benoît Diop liberté 2 góor gi sàmm góor Diop am na ñeme woo ko bañ a def këram. dara jëye borom Touba yaa may dégg donc. moo tax góoru Sénégal dafa am yoo xam ne dañuy ne daf leen jomm. ñoom Marianne nekk ci kër ga yaay càncaandu mu ne moom daan na bale du ñu bëgg a root ndaal du ñu bëgg a raxas du ñu bëgg def affaire yooyu. kii xool ne ko kii raxas na kooku daf lay jàppale bés boo demee bitim réew. bu ñuy wax ay affaire tubaab. ñun on a connu fii affaire tubaab avant tubaab yi di koy xam avant ñu dem voyager. Mm-hmm. dañ daan génn. dem Gédo ah. Gédo rafet. ñu toog fa di photo wu les mariés dem fa taxaw di photo bourgeoisie la bëgg yaa ma dégg te loolu dafa neexoon 18 heures nga dem cinéma Al Akbar ah. cinéma Liberté tout ah. était nickel waaw ah, ñun doon yenn ci naaj yi di bay Sonadis dem jëndi affaire jógee fa Printagna c'était vert gazon rafet ñun on a dañu dund yëfu tubaab ñun waaw donc on n'est bu ñu tii di dugg nii ne dañu jël affaire yu tubaab ñun ci tool yi nan daan di parka ak di gàbb ak di roose ay parka di réew def di gàbb li nga xam ne ñun dund nañ ko te c'est pas affaire ay <laughs> léegi su ma ñëwee si autorité pros ne ma ànd si booy waxtaan ak sa jabar ba mënu leen déggoo yàlla borom bi moo ko bind ñaananta leen baat moo gën bañ fa lu ñaaw fekk leen fa dëgg la muy réalité boo xam ne am na ah. mais avec ban homme la sénégalais yi amee loolu allez dans les tribunaux vous allez demander ñaata jigéen ñoo fa nekk seen problème bu divorce ñu téye ko fa pendant six ans sept ans bu yàggee góor bi na la bigamie la ma mës a def donc proche yombeewul noonu beaucoup de femmes ñu ngi souffrir comme ni nga wax ñu ñaanalante ku jigéen ki ne ku góor ki may ma baat. waaw mais c'est pas facile au Sénégal. administrativement mais doo mun moi je parle waaw même socialement nag boo leen divorcé xam nga yéen ñaan nga ko yow nga dem. tu ne peux rien faire tu ne peux pas avoir un autre homme mais moom am na droit dem am beneen jabar mais boo ko defee ñu ne la bigamie et ça c'est malhonnête. parce que bu fekkee da ngeen toog ba ñaanalante je crois yow nga xam ne bugganteetu leen ku nekk nanga dem même administrativement yombalal ko ko ngeen def ko dans la paix ku nekk dem. tout à fait moo gën. l'autre fait autorité je suis parfaitement d'accord. l'homme mooy autorité moom moo am parole moom moo am lépp mais ak ban homme un homme responsable un homme boo xam ne famille am buñ ko gisul sax deux minutes nam ma ko parce que xam nañ ne kii borom kër la da nga motal yëpp dépense ak affaire yooyu rek mooy tax nga am borom kër. Mm. mais l'entente avec ta femme l'entente avec tes enfants. Mm. naka nga war a mel ak sa jabar. Mm-hmm. ba say doom yi di si roy. Mm-hmm. naka nga war a mel ak say doom. Mm-hmm. ba say doom xam ne ñun kat sañu bàyyi kilifa la si kër gi. ah di nga yor dara de ñëpp xam ne kii kilifa la. di nga yor di nga yor as tuut de mooy de s'occuper de ses enfants. di nga yor as tuut de. s'occuper de ses enfants mooy say éducation doom. xaaral mooy say lépp doom. Mm. nga xam ne eh. jabar si boppam. xam na ne kii kilifa la. Ah. mais yow tu viens. sa jabar du la gis guddi Pros a cité ça sa jabar du la gis bëccëg say doom ñu la gis guddi say doom duñ la gis bëkk mais yow ñu la joxul autorité yow est-ce que war nga ko kaas. est-ce que yow bu boobaa say doom sax buñ la joxul autorité malgré Sénégal bariw fi xale yi loo mun munti def ñoom seen yoon nekku si quoi mais maire bi mooy kaas mais est-ce que am na droit kaas ndax war a amul droit bu fekkee sa jëkkër doo ko gis ngoon doo ko gis bëccëg mi ngi ci grand place bi mi ngi ci fépp fépp fépp mais attends yow pour ñu ne la yow sa autorité dañ la koy jox y' problème. su fekkee tegoo ko ko. yaa may dégg y' a problème su fekkee ko muy gën di daw parce que. soo ko ko tegut. am na jigéen yoo xam ne comme ni mu ko waxee ay góor yoo xam ne kenn respecté tu leen si kër gi mais am na. ay jigéen yoo xam ne tamit ñu ngi leen di teg loo xam ne la ñuy wax kenn respecté wutu leen si kër gi moo di di nga dem ba nekk ak sa soxna autorité bi di jàll boo ko waxee day jóg def moom muy participer comme ni mu ko waxee mm-hmm. muy jigéen yoo xam ne gor lañu sa jëkkër bi mu munul def ñu jékki-jékki génnee ko si entreprise bi jigéen bi kenn waru ko wax sax ndax yow war nga jàppale sa jëkkër wala dee da ko war a def par force ba pare par force boobu nga jox ko cëram bi nga xam ne amoon na ko si kër gi mais bu fekkee bi ngay am yaa ngi si baar yi yaa ngi defal nit ñi si biti say femme bu la ñaanee nga ñàkk ko kers yàlla di def moom ba mu dem ba mu am mais sénégalais du duñ gis yow bi nga amee yaa ngi ko doon ñàkk kers yaa ngi ko doon toroxal lenn rek la ñuy gis jëkkër la rek da ko war a respecté mm-hmm. loolu rek la ñuy gis duñ gis leneen waaw parce que su boobaa loo fa munti def ñu ne kat jabar ja am na lu muy def jëkkër ji te du yoon fekk yow yaa ji loolu si kër ga fekk yow bi ngay am toppatoo woo say doom toppatoo woo sa njaboot toppatoo woo dara pour mu am autorité si kër comme ni nga waxee que dañuy séparé wu mais si vous vivez en famille chaque fois que je j'entends chaque fois ñuy waxtaan gars yi di insister ci loolu c'est extrêmement difficile 14 345 sëy yi ñuy wax ñuy tas par jour xam ngeen lu ko tas mooy sëy yi nga xam ne jigéen ñi ñu ngi koy def à bras multiple boo nekkee sa kër goroog sa jëkkër si ton nam si ton mari n'est pas assez fort pour contenir ses sœurs wala pour contenir des fois même ses parents il problème parce que su boobaa moom autorité am dootu ko mun seq ak jabaram ni mu ko bëggee. Mm. parce que les autres vont s'en mêler. boo dëkkee comme ku mel ni góor gi. waaw père. père waaw. yow nga ne fak ngay ngay sëy euh, ak sa jabar si kër googu. ak ni ma ko xamee. waaw léeg-léeg may la fóotal ma il va pas te laisser. voilà fóotal ma. il va pas te laisser tranquille nga fóot ko àllarba soo ñëwee ma ma dagg ligne gi. il va pas te laisser tranquille doo ma fóotal àllarba. dëggal. nga fóot. loolu sa xayuwuloo ko. ma dagg ligne bi. dafa sama goro sama ligne goro. moom laay wax. mu am déggoo li ma léegi nii may déglu daw ma kay. dafa ndànk nag dama ne déggoo li ma la wax. doo waxtaan. waaw loolu la yow. ma ne mu am. déedéet waaw waaw xaaral. jant bu ñu la fóotalee te fóot du yoon dangay déglu. man déglu ma la damay wax. ñu fóotal la àllarba. dangay déglu àllarba xam nga kenn du ko fóotal kii. waaye kooku yow la yàlla moo tax àllarba soo ñëwee li koy tojal mooy nga dagg ligne gi dagg liñ wax naa leen ma wax yi yéen kilifa yi ku nu ci fóotal àllarba soo ñëwee bul ngaan ŋaang jigu la mi ngi mel ne nu fëgg la coowal guddi arrêté sa yëfu bidaa yi guddi bul tontu ko fet mais soo ñëwee fekk nu fóotal la àllarba daal lay weeral daggal liñ gi ma ne bopp daal di noppi li may wax suñu fóotee ta xay wunu soo ñëwee daggal liñ gi waaw yow may ñoo daggal yàlla ah def nañ ko ba taay de démb daggal liñ lan liñ la ñuy dagg waaw xamoo lu lu muy jëriñ liñ sax amatul xamoo waaw yaay ah liñ ah xam lu tax doo wér yi nii rek. ngay dagg déedéet bul wér déedéet soo wéree lu ci am topp la ci. ay ay ay ay faute la da nga koy dagg da ngay dagg ligne gi. ñun c'est ça qui nous retarde. waaw waaw dafa bëgg wax ay faute yenn jours yi baaxul. waaw loolu la bëgg expliquer ay faute yenn jours yi baaxul. da nga koy bañ am ak potum guddi. donc. waaw xanaa ab jotum moo koy def. potum guddi ab jotum. donc jotum waaw ah mooy kuy muuru ku borom këram génn àdduna muy muuru waaw waaw waaw waaw bu ko day fóot póotum guddi bu leen ko nangu de bu leen ko nangu póotum guddi ci kër gi on ne veut pas avancer guddi man su ma xamee ne maa ngi ak sama kër papa ak sama kër yaay ak sama jabar mu leer ma ne samay sœur waaw mu leer ma ne am na nu ñu mel ñoom si kër gi waaw mais je préfère te loolu la loolooy yoon jël sama jabar dem ut bu dee puxus nekk fak moom ñaanuma yàlla di vivre sama kër papa ak sama kër yaay ak sama soxna ba abadan ñaanuma ko yàlla nekk fa ak moom mu nekk ci li ko neex moom soxna si aa ah déet xamoo nag ndey nekku fa baay nekku fa njëkk jigéen nekku fa rakk ju góor nekku fa ah, kenn nekku fa moom moo fa nekk ak ndeyam ak xaritam da ngay liggéey yi dëkkuloo fa incident yooyu gis ngeen ko ba tey ci appartement yi wane na ginnaaw bul xamante lu nekk sa ginnaaw foofu daal laa mën a yem junju doy na boroomum xel ah wéetaay de wéet na de ku tukki nag nu reer sa ginnaaw voilà merci merci d'insulter les filles merci d'insulter les femmes. su ma neexee rusal li ngay wax. ba léegi li bàyyi ma ko rusuma bàyyi ma ko ni ma xalaatee. yow ni nga xamante ne lu ne xaj ci li ma la wax. yow foog nga ne jigéen bu wéet rek lu bon la bëgg a def. lan ah foog nga ne jigéen bu wéet rek lu bon la bëgg a def. yow yaa wax lu bon yow yaa ko wax parce que yow yaa ko wax lan laa wala kenn kenn ñëw ko ci gannaaw. arrête waay yow eh, bàyyi li ngay wax waaw dégg nga loolu. dégg nga loolu. waay yow loolu dafa ñaaw laa la wax. déggoo loolu déggoo loolu loolu nga bëgg a wax dama ne dégguloo loolu de ah, moom laa a wax. non parce que bu ñu dëkkee ñoom ñaar. déggoo li ma bëgg a wax xamoo ko. tukki ñu xeex yow yaa inventé. yow yaa inventé moom moo inventé rek. yow yaa ko bëgg a wax. yow ah m'a accusé dégg nga ma laal ko waa sa xel nag moo kii. sam xel yaa xam nag nag sa xel dem fa a neex de ñaw. yow ñawoo sama xel dafa ñaw. <laughs> background laa leen wax xool leen leen bu baax li ngeen di def wéetaay baaxul de ku tëkk nu reer sa ginnaaw franchement ba ki a compris franchement on a compris li nga bëggoon mais qu'est-ce que tu as compris mais qu'est-ce que tu as compris mais qu'est-ce que tu as compris lan laa wax lan laa wax faut pas m'accuser lan laa wax lan la jigéen ngir yàlla waay yow waay too waay yow kii naa fekk la da def la cee bëgg a inculpé ci biir dafa wuloo ak moom dara background la waxoo fi background oh, dara oh. dama bëgg ne yére bi sax ci boppam moom yére bi ngay jukki à tout moment nga ne yére bi kenn mën cee wax dara de kii Pape Mbaye la mi ngi ni Pape Mbaye la ah waaw madame Gassama depuis Kolda madame Gassama depuis Kolda maa ngi lay nuyu bu baax a baax dama bëgg madame Gassama. Ah. depuis Kolda. bu fekkee da nga nar a takk jigéen da nga nar a takk jigéen rek au début ngay xalaat. ne amoo si moom confiance. merci la bu yaa tooñ sa bopp. boo naree takk jigéen te amoo si moom confiance di xalaat yenn xalaat. waxuma da di xalaat yenn xalaat moom moo wax de tooñ sa bopp moo wax de. parce que je crois que dans la vie. donc mën ngeen woote benn su daanelee ma jël leen. parce que je crois que dans la vie. li gën a am importance. li gën a am importance mooy la confiance. si jigéen bi la yàlla dégg nga xam ne kooku ëllëg moo lay jural say doom mais boo amul confiance bàyyi fi ma bëggoon daanale mooy les célébrités seen mariage sonn nañ trop pourquoi ma ne sonn nañ trop dañoo am société boo xam ne yàlla méchanceté waxal célébrité ci célé ñoom ñaar côté yëpp waxal célébrité bu góor yeeg mooy bu jigéen beeg sonn nañ trop ci seen mariage Sénégal ay sëriñ lay seetaan waxal célébrité mhm. ñu leen di waxal yoo xam ne leer na ma mhm. amul bopp amul geen ñoom ñu toog te am na si ñoo xam ne bu ñu nooyee bopp loolu mooy fragile seen mariage parce que Sénégal nekk nañu dëkk boo xam ne tu vois du n'importe quoi da ngay jékki-jékki ñu wax la diw def na lii lii lii lii fekk li ñu koy waxal ak jabaram ak jëkkëram dara amu si donc célébrité yi